kenn du xam suñu garab ba noppi di am gàcce si jigéen may leen ma nopp ma xibaar leen ki yàlla may xam-xam ci wàllum ngóora Serigne abib Dia boroom góoru Saalum gaaw a yegg moom jeex na ci miim réew yow mi di sëy tey gaaw a egg wala ngay nekk ak sa soxna di gaaw a yëg sa bopp wala nga néew kàttan boo ko sekki ak sa soxna sa soxna du kontaan ci yow ceytale ak a bon musiba la daw si gaaw seet si jëmm ji kéemaan la ci wàllum ngóora day yokk ndoxu góor faral ko ba mu far dana dijjal la sewoon toon dana yéexal li gaawoon ci wàllum sey teg si sa junior gi moom day dëgër këcc tey it li ci gën a doy waar mooy garab bi dalay lekk loo di la nelaw loo di raxas sa deret bi ba mu set wecc te gis nga boo seeree ba nga jëfandikoo góoru saalum bi yow moom duus ba rek da ngay dem duus par force cay góoru saalum ak efficace ñoom. Amina Amina nii la taawal taawal moon la ko ñëwal ñëwal moon la. acca Amina Amina Toli il est ses bul mer bul mer lii récréation école la ak nga ñëw a def. Amina Amina Toli. waaw lii eh, moom lan la demee ne ay xale yu ndaw yow fii nga nekk ba ba ba heure bii xam nga yow ban heure yow tam jamono war sa problème. maa ay eh, tey xamoo loolu. tey jii nii tey tey. waaw. ah juum nga de. ay juum. Hmm, nga juum nga daba juum nga. nga xam hmm. su ma la nee ayaw ma ci yow rek xamal ne ayaw ma ci yow. waaw bëgg dee bu samedi ko aye. samedi ko aye. kii moo aye. démb ci dimanche bi ko ayee du moom du par ñaari fan la ñuy def kon tey boo amee xanaa yow même boo juumee moom moo la war la gàggal bi ne la kat tey maman jamaan waal moo aye tey. déet eh, déet ci ma de. noppi dëgg la maa la tooñ ndey mbili man mii ngeen di ay ay loo noppi daba yow yaa juum. man lu ma juumee yow. da nga juum ci ni nga rangé ni nga compté moo baaxul. man nag damaa waaru man. yow nga ne barki démb ak barkaati démb ci yow laa. Eh, d'abord li ma la xam naa ko. mais ayoo ma ci yow fii laa ay. te te te kër gi kenn mënu fi noppalu. kenn mënu fi reposer kenn mënu fi seetaan dara. papa jàppal ay bàyyi ay jàppal ay bàyyi ay ba kañ. Wally lan mooy sa problème. xam nga ko li ma dégg mu mu dugg ci salle. nee na day sa tante ay man loolu ma jaaxal fu ma sa tante fu ma kee. mooy dëgg. kan mooy. sa tante ji moo ay. bàyyi li ma nekk sa tante dama nekk sa boy bi kii bi sama tante. eh. wala yow nga ne man nekkee sa booy maa jaal sa baay. eh noppi man mii ngeen di ay loo yëg daal man maa fi maa yee. fii laa ay. fii laa ay fii laa laa jom fii laa ay. papa da nga fàttali mu tawee sànni sànni dayal bi passé le 15 bi passé. waaw ak le waay kon. le 17. man lu sama yoon ci football ak Real. Ah, déet ma ma de. lan mooy sama yoon ci football après. du ma loo sant mu dewele. fii nga fekk ma tëdd ay la kenn si sama yaay moo ay tey. xoolal papa. toog naa fii nga di ma sàcc. saal ñëpp toog ma sàcc. tey ngeen lan dafa bari te wute waxoon naa ko fi. dama xooli baar. looloo am dëgg neexul de man maa dem day def day jóg ñokket. wa wa wa wa waa ndànk rek ngeen jógal dama la fi bàyyi man tolloo ko ma fu ma amee kenn sama ay jógal yaa ngi dem day dem day dama ne la day jiitu ma topp ci waaw léegi maa ngi ñëw dama ne la du ma la fi baax su ma ne la jógalee da ngay jóg waaw kon bon nit fay da boo rey incha allah waaw doxandoo dem yow kay yaay dox doxal seet seeti baax na waa yi génn nag sa say seeti baax li ma la wax demal eh, sàcc dafa bari façon yow nag sa wax du bari di xew ci kër gi yëpp duggee ba léegi yaa fi indi indi ay jàppal ay mais a yoo xamante ne wax ci nag du bari su waree jóg naa nekk ci kaw loolu laa may jógal tëdd. eh arrêté lu jóg bu dul yaa koy wax. papa papa. yaa deux heures du matin génn kaay nga tëdd nga ne sa rek di manipuler itam guddi na. Ndeye tëdd mënuma tëdd tëdduma. ah lan moo tax tëddoo. sa daf ma force tëdduma. force wu lan fi nga ayee war a tëdd sa doom kay danaa dimbali. déedéet dama xamul yàq sa doom kan ci sëy sëy bi. waa loolu dëgg la waaye dégg ñu nga tëdd ba suba ñu réglé ko. mais nangul ma fi tey. lu may nangoo ne ma fi tey di nga aye fi lu ma koy nangoo. déet da nga hypothèque ay jàmbur. ok. waaw loolu yëpp dëgg la waaye tëdd ba suba nga fay làmp yi tëdd ba suba nañ réglé lépp dimbale ma la ngir yàlla. man boo fay làmp yi ma mën a neexam. man baax na damaa am insomnie. léegi dangay toog nii ba tey. ndax àq de xam naa Amel, moom amee na nga ah aaw ba nga yoroon tusi na koo sànni di ko toroxal lii dafa nga ne jaatu na ndax xale bu ndaw bi rek moo tax nga bëgg a jël di ko teg sama kaw di ma jant du ma la wax dara bàyyi naa amel nga ma amel ama àq toogal ñu ba bët set man maa ngi di tëdd du ma ñaani kañ yéey jam fërimaay wulee naa guyoo yéey yoo jam fërimaay bilaay koñ bi damay génn kër a abal ko ñii. jabar looy jooy. mënumaa nekk ci kër gi doon ma gëm démb xale bu ndaw xale gi bàyyi aada def ko sama kaw ñu ngi nekk néeg ba simb. simb ak moom it ak ay moom it jamonoy Sadio Ndiaye laa ko gëj a dégg. jamaa wóy ma nag yow sama mag nga bëgguma ngay mer fenn mais nag comme ayewoo ñoom ñi ngi seen néeg di simb bappa mu simb yow boo bu ayee sa néeg geen organiser seen sabar man sama problème bii ma toog mooy koñ bi man ni mu yaatoo ni yaatoo kër gi aas na kii aada na fi yor may ma aada na ci kër gi yor ñaari jeeg man oo ma jeeg ma toog fii di enjoy sama mbir nga ñëw di jooy. kon nag tekki yi xeetu waa yi sax bu ñu ñëwee tey fekk ko muy ànd moom ñun ñëpp. dinañ ay ay mag lañ. loolu du gàcce sama xol bi lañ bëgg a génne damay génn kër boo génnee ñun fu ñu jëm. dama ne boo leen naree faral man ma bàyyi la fi génn. baa ma def tas ko maa ngi koy tas mais gënalu ma de.